alors euh, Abdoulaye Mbow naka la ñu mën a jàngatee li ni mel mu doon situation boo xaw a euh, itam raar tuuti ndax la nu ko convoqué bokk na ci euh, affiche yi nga xam ne taf na ko di woo sénégalais ci ñu dem bindu ji ci liste électorale bi te mu ànd ak photom ci ñu dind ko ndax trouble à l'ordre public waaw mais trouble à l'ordre public man si bataaxalu autorité bi loolu rek moom ma si jaaxal mhm. trouble à l'ordre public si ban condition si ban anam defe naa ni loolu tout le monde se pose la question par rapport ak li nga xam ne gis naa ko même si yi nga xam ne mooy réseaux yi di ci di si débattre trouble à l'ordre public ban anam xam nga boo euh, à la matière boo xoolee côté électoral bi mhm. jëm si nga xam ne moo di affichage y a un boobu nag effectivement tey nii lan moo ko comblé côté électoral bi mi ngi ko comblé qu'en période justement de campagne électorale mhm. donc ba jamono ji tembe li nga xam ne moo di période de révision exceptionnelle sur les listes électorales def naa ni moom wax na ko dafa nekk service de ministère de Mansour laata loolu laata inscription yi ba si bii nga xam ne ñu ngi si diiru inscription yi ñoom ñoo war a def campagne mais campagne jamono ji c'est bizarre amut lu tax est-ce que bëgg nañu primo votant yi vote li am na koo xam ne sama sama jarbaat la si man moom 2021 euh, janvier la fukki at ak juróom ñettam di mat sëkk. Hmm. moom démb la may doo laaj ndax effectivement inscription yi nekkete am na yëgu ko hmm. woon donc à travers la hmm. s'il y a un je crois bien que il appartient justement à l'autorité de s'organiser léegi citoyen nag bu ko defee foofu nag mënoo ko job munoo ko toppee dara dans le fond euh, comme je dis sur la forme xëy na am na loo ko mën a reprocher peut-être mais sur le fond amul lenn parce que vide moo am si code Euh, Hadj Mansour est-ce que yombalul leen ko sax su le plan de la communication ndax xaalis bu bëri la waa ministère de l'intérieur waroon génne defar ay affiche woo sénégalais ci ñu dem bind euh, ci liste électorale yi moom mu faf ko def euh, ci déjà mbir mi situation bi naka nga ko jàngatee. lu tax convocation yi loolu mooy seen problème bu fekkee benn point boobu. Mm. <laughs> bëggoon naa xam lettre bi ñu bi ñu jël teg ko ci kanamu Bougane. Mm. yan point moo ci nekk. Mm. parce que benn point boobu la ñu gis moom la ñu comprendre. mais bu dee boobu daanaka théâtre la. dindil sa affiche sa photo daf ci nekk. Euh, nit mun na fa ñëw def acte vandalisme xëpp ci huile ak yooyu. loolu trouble à l'ordre public la. man wax dëgg yàlla xawma kañ la photo nekk trouble à l'ordre public. bu fekkee loolu moom aajuwul sax commenté. cest dire que mooy xamoo foo jëm rek quoi mooy mooy vraiment sol veste dugg ci am ndox. sëñ Saliou mu doon situation bu sénégalais yi. dund xaar mooy tey ñu ñëw. ñu ñu opposé ko code électoral bi ne code électoral dafay tere lii nga def. Hmm. su boobaa ñu xam ne le président de Gëm Sa teg nañ ko ci ay texte hmm. mais la nature a horreur ñoom. nga xam ne campagne de communication bi ñoom la waroon tey. Hmm. en réalité donc je crois que Bougane leur a un service. léegi nag ñoom leen ci dérange mooy. Hmm. c' pas le contenu du message. parce que tey su fekkee ne Bougane dafa defoon ay affiche wax ne Sénégal dem leen bindu te hmm. turu gëm sa newu ci affiche Bougane newu ci li wóor te woon ne mooy affiche kenn du ko mos a mais nag jàpp nañ ne aussi comme que moom affiche fi nekk <laughs> am daf ci nekk. dina affiché mais trouble à l'ordre public moom je crois que franchement moom la am foofu bu fekkee ne dafa am aussi ñoom dañoo wax la neex mais loolu moom trouble à l'ordre public amu fa ñu des ci wàllu bi ba léegi sax Serigne Saliou Gueye wax ci révision liste électorale yi ca Tambacounda yéex na lool sax ndax conditions yi daanaka mayewu ko te it matewu ko benn yoon ngir nga ñu enrôler rek ci liste électorale yooyu lu euh, yéeme la te métti lool ñu ci bari dañuy dox ay kilomètres wala sax di daw ay kilomètres ngir euh, dem bindu ji ñeneen ñi sax gis na yoon wi day tar lool ak ci jamonoy nawet gi ñu nekk ñu ngi sàkku kon ci autorité yi en tout cas ñu àndi ci ak saafara